صالحا تقباه وأخبرني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته di gën a màgg teg ko ci loxo Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifatu Cheikh Mouhamadou Bachir yàlla na fi yàgg loolu te ànd ko wér mu di kàddu yu bàyyeekoo ci Serigne Touba Cheikh Sidi Moukhtar mi nga xam ne moo fi toll taayu Cheikhul Khadim yàlla na ko fi suñu borom bàyyi lu yàgg loolu tam ànd ko wér banaa bi nga xam ne am na ko ci. liggéeyal islam am ko ci liggéeyal yoon mooy suñu borom mooy ko kàttan ko ba mu li ko ci jàmm mu yabal ma bërki démb boole ma ak Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo mag ci ak bi ci kër gi yëpp te ñëw ci jataay bi ku ne it xam ne sëriñ bi dooñu ko naaw ci diggante Mouhamadou Mountakha ndax seen diggante kon moom fu mu teew sax dañuy ñëw noonu rek waaye moom moo ko fa teew ndax mooy ñëw di ñoom di loxoom di ci yoon bi lu wax ma ci lan ñi tam lu ëpp fukki fan ak juróom gannaaw ren jii de yàgg naa ko waaj waaye doo ko woon naa lool ci ne sëñ Mountakha daal ren faw ma demal sama bopp ci màggal gi màggal Porokhane siyaare ba ci bis ndax ñoom ñaar seen diggante day lu sori tey lu xóot du ñu yàgg itam cofeel bu rëy làkkoon ci seen diggante ñoom ñaar dama ci yéemu lool ci sëriñ bi cër bi mu jox sëriñ Mountakha ak nangoo di ko sëriñ Mountakha nangoo def ko kilifteef amatul bëgg amatul bañ سيرين بيتام باي فرام دي سير واخنا كو في دام ني كيب كو خون ييكتي نغي ادي وكو جوخ شيخ خديم نين بو كيسه سي منتخا بو فو يوسف كون لولو اك تير مو كو يوسف كون لا شيخ عبد الله حد مكي لا سيري شوال مكي واخون شيخ عبد الله حد مكي لاي فات لو دافا دا يوب يوبنتي تات اك غير با شاك مو نكو مني سو واخني سو بوكو ما لا ndax loolu boo ko waxee dootu doon dëgg ndax nit boppam du ko gën kenn du ko gën boppam waaye nag ñaax ko ñor nga ma lool waaye seen diggante yow ñaar rek loolu jàmm sëriñ bi moo noonu wax ne sëriñ Mountakha gën boppam kon loolu lay wax te yàlla ko yàlla yàgg lool bi nag dafa gàtt lool ndax waxtu wi jege na te jotaay bi yeex na tàmbali ñu ngi nuyu mboolem njabootu Serigne Touba gi fi teew ñëpp di nuyu itam ñi nga xam ne ñoo fi teewal président de la république ci njiital Mouhamed Dionne mi nga xam ne moo jiite mboolem gouvernement bi di ko yóbbante ñëw ak i cant ak i ngërëm ci président de la république loolu itam li ko waral mooy cant goo xam ne ci jëf rek lay ndax bi màggal gi jub sëriñ bi damaa joxoon digal wax ma ne ma naa woo président fàttaliwaat ko màggal bi xamal ko Porokhane ni mu demee ci mu murid ak ni mu ko jógee moom ci bopp mi tam mu jël ci ay engagement wax ne fas na yéene lu mu ci dana ci defal kooku Cheikh Mouhamadou xam ne nag moom la sëriñ bi tegoon màggal yi ci wax na ma ci làmb ñoom ne ma naa leen jot li cant ak ngërëm ngeen xam ne ne mboolem liñ ci war a def def nañ ko ci kon sëriñ baa koy sant di ko gërëm bu baax di ko ñaan suñu borom kàttanal ko dimbale ko ba li nga xam ne yéene na koo jëf ci serigne Touba yéene koo jox ci yoon ba moom kàttan boobu ko maa defal barke serigne Touba ginnaaw bu loolu jàllee nag kàddu yi néew nañ ci wax ndax fàttali ci nga xam ne moomoom bis bi tey di soxna jaaratullahi mariam musu moom mi nga xam ne dafa liggéeyal serigne Touba looloo waral Serigne Touba fayee ko li mu ko fayee li mu ko liggéeyee itam yu bare bari la ndax bokk na ca Serigne bi daana ko sant di wax ne li jiitu ci li ma liggéeyee de mooy fexe ne ba suturaal ma nëbb sama mbir ba ma agsi fii ma agsi ndax moom Serigne bi ku ne xam na ne ni ko Cheikh Mouhamadou Bachir waxee ci téere bi dafa ñëwaale melo woo xam ne du melo doomu aadama waaye lépp itam soxna si waajal bi ñu ko waajal looloo waral mu suturaal sëriñ bi ba sëriñ bi ak si fi mu ma ak mu ak si ci ak njàmbaaram muy loo xam ne ñëpp ndax nitu yàlla bu ñu koy fàttaliku li ci ëpp solo mooy jikko yi mën a woy ci moom mooy ñi mbokk doon sëriñ Mamadou Anta Sidi kenn ku ci ne danaa defoon mu raw koo bokkandee ak bàyyi saa su xëyee kenn ku ci ne dana fekk la nga war a soq mu soq ko wal ko ba nga bi ci loolu fekk na gisam ne nuyu la kon la ñoo xam ne ñëpp war nañ ko yore ci moom sàkket bi siiw na nekk nañ ca xuru Mbàkke ak soxna Faati Isa Jóob mi mooy waajuru borom Daaru ñu ànd dem ci liñ daa tuddee teene teene tàgg nga xam ne mooy teen yi nga xam ndox bi da daa sol ñu ànd di duy ñu yor bagage yu réer yi yàlla suñu boo def biñ demee ba baag bi daanoo ci biir biir teen bi fekk na booba ci sahil soxna si sëriñ bee ci ginnaawam booba bëri bu waaye sëriñ bi dafa wàcc jël loxoom xëcc loxoom ba mu jege ñu génne paak bi ñu daal di duy sëriñ bi nee naa nag na ngeen ma suturaal soxna Fatou Issa Diop bis ci lañ wax ne ci la wax na soxna jaar ne ko di ko yéem ndax boobu moom xamagutoon xar baax yu bëri yi bi àdduna ne ko man kat bis na kat tey ko doom waaye kilifa laa war a def ab sëriñ laa kon moom manis naa wax mooy taalibe bu njëkk ci yoonu bi sëriñ bi soxna jaara jëmm ji tedd la joo xam ne lii ko sëriñ Tuubaa fee war naa tax ñëpp xam dara jaar ak cër waaye itam mu ngi sa ñàkk fàttaliku Cheikh Mahamadou Bassir mi nga xam ne lépp ci lu ci nit jariñoo kat moo ko def ndax la jëkke sëriñ bi di ko fi yebal demoon na ba mandarga yi barab bi ñu bari xamatuñ ko lu dul ñu néew ñu dëkk ci wet yi nga xam ne daana dem jaaxal lool waxtu guddi daa nga gis seen lu mel ne ak leer bu bàyyi ko ci asamaan ba àggsi ci bi ginnaaw bi da leen Sëriñ Tuubaa door a xamal fi mu doon mu yebal fi Cheikh Mouhamadou Bachir mu ñëw fi fekk dara ni ko fi mu sanc ko defar dëkk bi woote màggal bi ba bisu ak si jotee mu fi bàyyi ko itam doomam ju baax di Cheikh Moustapha Bachir mi nga xam ne Cheikh Abdou Khadre daa la ko seeral ni moom de bokku ci ñi nga xam day amul tàbbi ci biir lay tëb gene ci biir dugom mu taxaw ci taxaway bu ma sëkk boo xam ne li ñu war def ci dëkk bi def na ko ba toroxaan tay mën na tuba kon yalla suñu doom do lay leeral ta taxu ci barke bàyyi fi tam jambar ji nga xamne moy cheikh mahamadou muntaha mbàkke mi nga xamne ne képp koo xam ne bëgg nga sëriñ tuba wala ngay ab julit boo gisee jëmm rek da nga xam ne nitu yàlla ngi ko xam ne pour ñàkk soxla ci àdduna waxtu way jëflanteeg moom la lay gën a yem mooy woyof bi la lay gën a yem ci mooy gi Sëriñ Tuubaa gën a ci moom mooy nangu kilifteef ak cër gi ko yàlla def waaye loolu itam nag moo ko may jural ko waxuma taalibe Sëriñ Tuubaa yi waaye képp koo xam ne ak jullit ngeen te bëgg lu baax boo gisee jëmm rek da nga xam ne nitu yàlla dëgg yi wa min shahaadatil fata xayfa allah yurdahu fu abish rasat kon ngir bañ a guddal ñi ngi jeexale foofu kàddu yi di ñaan ci daraje soxna si tedd si nga xam ne bis bi moom lañ koy defal képp ko xam ne teew nga fa rek suñu mën a faj say aaju ci barke Sëriñ fi sëriñ bi yàggal fi ñu yàgg ànd liggéeyu Sëriñ Tuuba fañ ko bëggee ñu yàgg fa waaye itam di ñaanal Cheikh Mamadou Bachir bi nga xam ne fépp fu dëkk bi àggat moo ko fa àggale wuutu ci njabootu Serigne Touba gépp muy ciritam boo xam ne Serigne Touba ko la moo tax suñ suñ borom ba léegi day am taasu di barke asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu